tombeek le 17 octobre 19 euh, 2019 euh, doon nag bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal donc euh, demu xaadimu rasul ñu ngi file nag ci fii nga xam ne moo di xëbru Cheikh Ibra Fall ku ne Cheikh Ibra Fall rek wax Baabul Mouridine tubaab di ko wax fer de lance tey lépp loo war a xam rek ci daanaka mouridisme boo jaarul ci ki nga xam ne moo di Cheikh Ibra rek daanaka doo jëriñu donc tey ñu ngi file ci xëbroom ñëw rek ngir dund ambiance bi ak yéen jéem a xool nan la ñuy dundee màggal gi yor-yor bi xanaa dañuy jéem rek xuus ak yéen dugg ci biir xool dellu sewaat ak yéen. xalifatu rasul sallallahu taala rijal la kamal la sharif la yeneen la gi géej ba sa géej ko fàllay wuyoo gi géej gannaaw géej ko fal lay wuyoo laa ilaaha illallaah mandi soo yomb na mandi leer faale jafe jàpp góor yomb na sol kay leer faale jafe rijal la kamal la sharif la yeneen góor bu maanoo sore faal ndege na sol kay leer faale jafe jàpp góor yomb na sol leer faale jafe mandi so yomb na mandi leer faale jafe rijal la kamal la a sharif la yeneen la la la allahumma salli ala sayyidina baax na de ca sekk laa tudd taaliba sëñ Cangund bu mam Sallu Fall dëkk Ndar euh, yow depuis ban année donc yaa ngi ci ci bërëb bi 89 ba léegi 89 ba léegi yaa ngi ci bërëb bi waaw mosoo mosoo fee moo ma jële woon Ndar ci jamono événement yi ni ma tàggul sa ndey ak sa bàyyi te ànd ak man ba ma fa jógee mu tarbiyee ma tarxiyee ma delloo ma fa ma jógoon waaw ma delluwaat di nekk ndar di fa liggéey waaw maa ngi liggéey nag may Baye Fall at mu ne bu ma ñëwee damay ñëw jàpp ci liggéey bi xam nga ko fa jógee bokk tak ka fa jëm Baye Fall moom moom du du du du du du tekki giir dund la même boo nekkee sa tool yi ba mu yàgg da ngay toll am moom am da nga am soxna yori doom di leen dundal di waaye bu sëñ bi wootee da ngay ñëw loolu la waaw Baye Fall moom liggéey joxe yalwaan dunde la. Cheikh Ibra lu mu doon ci yow. maam Cheikh Fall li mu doon ci man sama sama lépp la parce que man na ndey man na baay parce que amoon na noo xam ne meloon nañ ko ay jamono waaye sëñ bi kenn toppee ko man toppee ma ko alalu àddina waaye damay xool fa ma nekkoon ci jamono ci ci jamono mu jël ma tàggat ma ba lu bare dañ man looloo ngëm-ngëm boobu laa am. juru safaar bi ban mbégte yëg. li ma ci yëg dëgg dëgg mooy liggéeyal yàlla laa ci yëg yàlla yi kese laa si yëg parce que deret dañ koy may waaye ñaq dañ koy jaay ñaq dugg bàkkaar toxu leer dugg. ñu ngi lay ci kàddu jaajëf waay Fall. jërëjëf ma xewal. maam Cheikh Ibrahima man de di dongo sëñ Cheikh Fall mu sëñ Aliou Fall Mbawar mu maam Cheikh Ibrahima waaw. daggatu ba ba bopp lu ma am maam Cheikh Ibrahima lu baax la maam lu ma bon la maa ko fortaatu feneen waaye baax rek la def si man li si kaas bi nag bu dee dëgg la li si cafetière bi du ay nax. sànq yaa ngi wax ne sàkku bi booy sàkku dafa am nooy doxee. ndigal mu ndigal moom maanaam euh, dégg naa sëñ Mourala am sëñ Fallou mu ne jëfe ko mu ngi mel ni lëndëm mu fajar si leeraay rek lay mujj ñàkk ko jëfe mu ngi mel ni si lëndëm mu timis si guddi rek la jëm waaw yàgg na yàggul daal. anam yi nga xam ne ci nga fi ñëwee. ah anam yi nga fi ñëwee de xanaa si ndigal laa fi ñëwee ndigal la ma fi andi su ma fi ndigal jëlee tamit ma jóge jaajëf Fall jaa ngeen jëf Fall yàgg am di Moussa waaw taalibe sëñ Cheikh Fall Mbawar Moussa Ndiaye Fall Mbawar mu maam Cheikh Fall jërëjëf Fall. Eh, buñ mënee xam tur ak sant bi. moo Talla ban maanaam ban taxawaay nga am barab bi man ak Moussa Mbodj mi fi nekk ba suñu remonté boole woon ñu ja nee ñu nee ma woo ma ma ñëw mu ne ma maa bëgg nga jàppale ko si barab bi nekk fi maa moom. Euh, ñu gis ne bërëb bi euh, waxtu màggal mbooloo yu takkoo takku dañ fi ñëw ngir siyaar si ngir ñëw barkeelu ci jëmm ji nga xam ne ñëpp xam nañ ne mooy Baabul Muridiin bi nga xam ne Sëñ Tuubaa wax na ko euh, ku jaarul ci yoonam rek ku jaarul ci buntam rek. maanaam doo jëriñu ci yoon wi euh, tey est-ce que mun nañ xam organisation bi file ci bërëb bi surtout ci bésu safari ndax dina yomb fii. organisation bi moom du yomb waaye nag sëñ bi nag moom moo moo ñu moo ñu si rek sëñ moom mooy suñu lépp moom moo ñu jàppale ndax bañ bañ ko tàmbee def ak léegi yàgg na waaye sëñ baa ngi aar sa mu ngi ñuy jàppale waaw ba lii nga xam mooy liggéeyu sëñ bi ñoo ngi koy defar na ko sëñ bëggee. ñu di ko ñu jël ko di ko jébbal mu yëblaal ko jébbalaal ko Sëriñ Tuubaa at mu jot noonu la ñuy def taxawaay yooyu la ñuy di ndax diggante ja 93 ba léegi lépp lu sëñ loo xam ne barab bi génne ko si màggal xaalisu màggal Sëriñ Tuubaa lañ koy jox sëñ bu ko sëñ bi joxaatee joxaat ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa la koy joxaat da nga jël joxaat ko Sëriñ Tuubaa jébbalaal ko Sëriñ Tuubaa lépp yëpp lu fi ñëw rek moom nag moom moo ko waxal boppam moo ne damay ne damay joxe addiye ba jóge fi sama barab di joxe addiye loolu moom moom moo ko defoon sa wane na ko it waaw ñu gis ne bërëb bi du du nu la neex nga fiy duggee dafa am ay critères yoo xam ne ci la ñuy basé wu parce que ci entrée bi sax booy dugg dañ naan la nga summi sa kawaas yi euh, lu waral yooyu. kawaas yi boo gisee bi ñu liggéey bërëb bi 93 sëñ Mawone mi da ne woon sa ñam di jëwriñ mooy rakkam rek sëñ Basi Faal Alxuraan da nekkoon am di mu ne ko faal mu ne ko na nga jàpp ne dàll ak kawas ñoo yem la tee yëg naaj lu ne dàll la boobu baag léegi ñun ñun ñun mosuñu fee kawas. moo tax ku fi ñëw ku ne des na la wax ne simi say kawas simi sa mbaxane lépp des na la ko wax des na la wax it ni ngay def booy siyaare booy siyaare da ngay da ngay rupp si suuf mel na kuy julli jigéen ñi dañuy toogee nii góor ñi doom toogee nee duñ bokk place placement yi ñuy waaw loolu ndigal bi la woon euh, ñu gis ne euh, du sang bi rek moo nekk ci bërëb bi Euh, ay bàmmeel yoo xam ne moo ko wër est-ce que mun nañ xamandi ñan la barab yi fi ne ay njabootam ñoo fi ne sëñ mu Moussa fii man wéeru nii suñu sama ginnaaw sëñ Mour Moussa Cheikh Ibrahima fi ne sëñ Mour Moussa sëñ Motaala bii nga buntu ñuul bi nga jàkkaarloo sëñ sëñ Assane Fall la sëñ Abdou Sakkoor sëñ Gunda sëñ Aliou Fall Mbor sëñ Cheikh sëñ sëñ Cheikh euh, sëñ Abdoulaye Fall Ndar parce que topp ni ay sët lañu sëñ sëñ sëñ Cheikh Al Baye bu góor yii nga jàkkaarloo nii barabu sëñ Abdou Aziz Fall la ak sëñ ak sëñ Abdou Khadim Fall beneen sëñ Mota sëñ sëñ Assane Dabaye fa ne ak sëñ Cheikh Khady Gueye parce que def sëñ Cheikh Ami Kounta noonu lañ toppantee barab yi ba nga njëkk jot si buntu ba sëñ am di sëñ am di ci kii la bii si sa penk mooy sëñ Modou Mbend bis topp sëñ Modou sëñ sëñ Mbacke sëñ Mbacke sëñ Mbacke ngun sëñ Mbacke Fall moom sëñ bàyyi sëñ Basir Fall alxuraan ba sa topp rakkam la muy sëñ sëñ maam Saliou Fall kooku rakk ji ko nangul la nag waaw rakkam la ba noppi nangul na ko rakk ji waaw ndax lu mu mës a am jox na ko Cheikh Ibrahima topp na ko it ba am moom waaw. Babul Mouridine doon na koo xam ne day gën di sax ci xolu jaam yi euh, saa su ne maanaam boo tabbee ci yoon bi rek. Euh, ka ngay njëkk saxal sa xol sax dina bokk ci mën nañ wax ne Babul Mouridine la ndax wax nañ ko Babul Mouridine moo di buntu yoon bi euh, day gën a yéem jaam yi chaque année dañuy gis ne bërëb bi day gën a bëri nit lan la def ci yéen. loolu moom nangul bi mu nangul Serigne Touba moo fa feeñ ndax daa nangul Serigne Touba moom daa ñëw rek nangul Serigne Touba nga xamante lépp moom da koo yennu rek jël ko loolu nag moo feeñ moo feeñ ci moom moo tax xol yëpp jiblu ko waaw nangu nga mu moo tax xol yi jublu ko moom la ko sëñ bi fa sëñ bi di wan ne ko nangul nga ma moom tax mu fay ko mu fay ko lii wan ko lii sa daa tàmbali rek waaye nu yeggul yeggalee gud nii am tàmbali la man sama serigne la ndax si sëtam laa jébbulu sëtaatam laay wax sax ci la djeblu sëñ mu deminte laa jébbulu woon bi mu fi joge mu djeblu sëñ Fall mu sëñ mu deminte liñ fi nekké nak ndigalu sëñ Cheikh Fall Khady sëñ Cheikh djembu mo lañ fi nekké say ñaan nak mu yag lool nak ñong koy ñaanal te suñu xol xol suñu xol lañ ko tibbee nak yow depuis ban année yaangi 93 ba légui maangi fi ci barab ci ndigalu sëñ. ci ndigalu sëñ bi fi la daan fanan nak ak yek ba bañ demee ba bunt bi tëjee bunt bi tëjee ba bunt yi tëjee si laa amee ndigalu di fanaan si kër ya waaye moom naka jekk fi laa daan fanaan fi laa daan yendu. fii sa taxawaay. fi mu toll nii fii si barab bi man ak Moussa mi fi ne sëñ Maodo Aminta ñu fi boole woon ñu ne fi gannaaw gi Ndiouga Ndiaye mi nga xam mi taalibe sëñ bi la sa sëñ bi ba muy jébul sëñ bi ñu àndoon ak moom yóbbu sëñ bi mu jébul sëñ bi sëñ bi dénkaan ñu ko. ginnaaw gi lañ ko woowaat ni ko ñëwal ñi nga sëñ bi ñoo boole woon ñu ànd di liggéey ñu ànd di bokk liggéey at mu jot dañuy gis euh, euh, mbir yi day gën a yéeme lan moo la ci atub safar bu ren. at mu jot moom sëñ bi bi wane boppam rek at mu jot sëñ bi wane boppam du moroom kenn waaw at mu jot day wane boppam saa boo jàpp ne at mii lay gën kii at moom mooy mooy foo wax at mooma ma ma waaw ñoo ngi ñaan nag Cheikh Mountakha ak sëñ seex Jëm nii yàgg fi si ànd ko wér kenn ku ne day dund dund ba doyal rek ne maa ngi dem loolu lañ leen di ñaanal nañ am wér jekku ndigalu sëñ bi ba faw ci barke Cheikh ba. sëñ Moussa Diouf Moussa lu fii sa teewaay. tey jii sama teewaay ñaar la maanaam mbégte si yoonu lislaam ak yoonu murit parce que barab bi nga gis ñu taxaw ki ko waral mooy maam Cheikh Rama Fall bu dul woon moom dara du sotti. moom moo ñëw xàll yoon wi leeral yoon wi taal ko ba mu leen leer ba ñun ñëpp ñu mën see jariñu ba euh, sëñ Fallou tuddee ko jumaa ji di Lamp Fall bi yoon wi ñàkkee leer am na nag ñu fi nekkoon mais ak taalube la leen ñëw woon leen ak jaayante ak ñu taxawe taxawee ci kanamu sëñ bi loolu moo waral lii tey naa naa leen wax tuuti na ngeen dégg fii ñu ko denc moom moo fi indi boppam fii nu fi indee boppam fii jàkkay sëriñ Touba la woon sëñ bi fii la da daan jóge si biir dëkk bi lépp lu mu daan mën si def fii la koy defee ay kiyam yeneen ak yeneen ak yeneen keroog maam Cheikh Rafal bi mu wàccee liggéey ñu ne dañ koy denc si jumaa ji ñu laajte ñu ne ndax moom amul woon dénkaane ñu ne axa kay amoon na dénkaane dénkaane mi moo moo doon barab bii ñu ko denc parce que dafa àndoon benn taalibe waxtaan ak moom ne ko fii la yàlla na yéex nag wante fii la moo tax keroog bi ñu wàccee liggéey ñu bukko ko yóbbu si jumaa ja taalibe boobu ne leen man de macha allah Fall waxoon na ma leen ne bis bu wàccee liggéey fii la moo tax ñu indi ko fii parce que fii jàkkay Serigne Touba la woon waaw jërëjëf maam Cheikh ma Fall waaw loolu moo laa bëggoon na leeral Moussa Diouf Parcelles Assainies Unité 5. salaamaaleykum yaay booy noo def. maa ngi sant yàlla. est-ce que mën nañu xamante ni sant bi. sa teewaay ci bërëb bi. waaw dama teew ci bërëb bi en tant que taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall ndax sa papa sëñ Modou Mbend euh, mu maam Cheikh moo ko tuddee boppam wëlbatiku yëkk jëm jë maam jox ko euh, kër ci ñaari Baay Fall muy ku ñuy wax Njugo ñuy nag ñuy taalibe sëñ daam mu sëñ Taala mu sëñ Modou Mbend Fall mu maam Cheikh Ibra Fall moo tax suñu teewaay fii ci bis bi. maam Cheikh lu maam Cheikh Ibra Fall lu mu doon ci yow. maam Cheikh Ibra Fall dafa doon maam ci ñun ñu wëlbatiku sa mbàpp jébbalu ci moom ñu nu wëlbatiku jébbalu ci moom ñuy taalibe encore sëñ Cheikh Mbacke Fall mu nekkoon fi ci sàq mi bari ba mu nekk fii ñu ñëwoon doon ko ziar waaw loolu la ñu bokkee. ci yëg-yëg ci euh, yëg-yëgam nag euh, bu ma la waxee ne yëg-yëgam c'est émotionnel c'est sensationnel yëg-yëgu taalibe rek la ñuy def ci moom waaw loolu la ñu def ci moom yëg-yëgu taalibe ko. maam Cheikh Ibrahima Fall li ma defal dafa bari ndax man sambapa bi mu fiy jógee daf na woon ñaari rakka yi ca ndar ñu di ko defee wakaam def na woon bi ma fi jógee bu ma kenn defal dara ñaari rakka yi ci ndar moom laa bëgg ngeen dem moo ko defal fii ci wakaam bitigu jàlloo ñaari rakka yooyu am na depuis 93 la ba tey ñaari rakka yooyu ñu ngi koy célébrer bi mu fi jógee dana kenn bu ko kenn célébrer anniversaire am nañ ko célébrer ñaari rakka yi ci ndar moo tax ñaari rakka yi boo ñëwee wakaam bitigu jàlloo mooy suñu ñaari rakk yooyu nga xam ne ñaar fukki at ak ñett mi ngi fi sambaap bi mu fiy jógee moom la ñu dénku ñu di ko topp boobu ba tey lépp ci dooley maam Cheikh Ibra Fall waaw. 18 safar niki tey. waaw waaw fekk la fii bi yëg-yëg nga ci waaw ñun 18 safar yëg-yëg bi ma ci am mooy bu ñu xëyee dañuy xëy 6 heures du matin bu ñu xëyee 6 heures du matin def bernde yi euh, def defar suñuy baax jox taalibe yi génne ba ci mbedd mi jox leen bu ñu waree naar di ñëw fi nag ci yoor-yoor gi la ñuy ñëw ziyaar ñun. waaw ñun bu ko defee ñun suñu màggal ñoom lu ñuy def rek dañ koy daal di def balaa yoor yor bi ndax yoor-yoor bi mooy ñaari màggal gi mooy jaaru màggal gi. ñu ngi lay jaajëfal yaay waaw jërëjëf jërëjëf. fàttali ñu a na màgg man Nogoy Ngom laa tudd. Eh, maa ngi dëkk Dakar nag waaye maa ngi say camp maa ngi xoox. ñu ngi lay jaajëfal waaw kontaan naa jërëjëf jërëjëf kontaan. gisee noonu ñu ngi ci bërëb bi ba léegi donc file ci xëbru maam Cheikh Rafal euh, ni ngeen koy gisee nii fii moo di sorti bi euh, nga xam ne góor yàlla yi ñu ngi fii daje euh, ci bésu safaar bi di yëkkatu baatu kalima bi laa ilaha illallahu donc nga xam ne moom la leen mam Cheikh Ra nampal moom la leen tàmmal moom la def ci ñoom moo tax moom la ñuy saxoo saa su nekk boo gisee rek sama ginnaaw ni ñu ngi koy yëkkati ci image yi xam naa di ngeen ko gën a nemmaku waye lolou lañ fi fekk dal manam yàlla kese hein donc mom lañ fi fekk dundu yalla euh wéy ci yalla dox ci yalla donc lolou la maam Cheikh ibrahim Fall wan ay talibem té lolou la euh, tété ay talibem dañ leen di bàyyi rek ngeen dundu ambiance bi tuuti ñu déllu ci aussi euh waxtaan ak ñi nga xamné ñom lañ fi fekk seen teewaay fi ak yeg yeg bi nga am bi ñu am ci bëssu safar bi. kilifa gi no def. Euh, ñoo ngi sant yalla bër. di euh, gërëm sëñ Tuubaa bu baax baax. tur la maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, tur beeg sant bi. Euh, man euh, Cheikh Ibnu Sarr laa tudd Thiès laa dëkk. Thiès dëkk waaw nu Sarr waaw. ñëw ngir màggal gi 18 safaar bi mu tombeeg bésub tey bi. Mhm. ñu fekk la fii ci bërëbu maam Cheikh Ibrahima Fall tey lan moo fi sa teewaay. fii moom dafa jéggi dayoo maanaam. ndax baatu laa ilaaha illallaah képp ku di ko dundee dafa am loo xam ne daanaka daf ko def ci yow. man naa màggal mais saa yu commencé. terminé ci julli 2 heures pour dogu a tellement que c'est c'est c'est extraordinaire. c'est extraordinaire nit lu mënu la décrypter. tellement que c'est c'est c'est c'est grandiose. wallahi azim mam Cheikh Ibrahima kenn du mom kenn du maam Cheikh Ibrahima. mel na ni def nga sa ziyara ba pare nga ñëw ñu fekk la fi ngay ngay déglu xal kalima bi. Mhm. euh yeg yeg bi. waaye yeg yeg bi nit mënu la wax. du lu ñu lu nit di naataable. dang koy sentir ñun dañuy sentir ni baatu la ilaha illa dafa bokk ci ñun. wallaay azim fay yóbbu ñu daf ñuy yóbbu feneen mm-hmm. bu ñu sañoon lii saa su ne day nekk ci ñu mm-hmm. dafa kenn attunu ko mm-hmm. maa lax loolu kenn attunu ko kenn du maam Cheikh Ibra la fekk nga ànd ak sa tout bi euh, lu waral nga koy jiital waaw li mooy ndax li mooy dëgg wallahi leneen leneen lu leneen lu waay def ci àdduna bi perte nga baatu laay laahi la rek mooy dëgg wallahi azim kii soo gisee tey ma jiital ko lool kese bi mooy premier màggalam tey waaye dama rëcc sax lu tax teelu ma ba muy perantal kenn du xamul li nit di sentir fi kenn xamu kenn mënu ko waxit jërëjëf maam Sayra ma Fall wallahi asi kilifa gi no def sant Sëriñ Tuubaa wér euh tourbe ak sante bi Seydina Omar bin Khattab eh, ban yeg yeg nga am ñu fekk la filé ci nga xamné mom moy esplanade maam Cheikh Ibra Fall bërëb bi ñu fekk fi talib bi ñu ngi yëkëti kalima bi ban yeg yeg la la def en tant que talib waaw képp ki ab talib rek war nga wax jërëjëf Cheikh ibrahim Fall lambal mu ngi ndax kat moo te naat bi raw ndax sëñ mu Ka nee na wax na ne tuuti kon sëñ Tuubaa dem mu lépp mbiram dem te kenn du mos si baati ndam lu yomal na lay lay lay am sëñ Tuubaa kon Seera Fall moo te sëñ Tuubaa raw kon képp ku ab julli rek war ngaa sant sëñ Tuubaa war ngaa sant si Ibrahima Fall Baabul Muridiina ñu ne dañ ci am yëg-yëg bu baax a baax ndax dana woon liggéey gën jàng joxe gën julli maandoo gën koor te boo imaginer loolu mu wax yëpp loolu moo gën a jafe julli ak woor liggéey moo gën a jafe jàng maandu moo gën a jafe koor ndax léeg-léeg nit nit nit a pare di ñëw kon nga xam te moom li mu fi indi mooy dëgg Seydou Fall li mu fi indi rek mooy dëgg man am cofeel ci moom ndax dafa maa wan boppam ay yoon yoon te sama taw Seydou Fall laa ko tuddee kon man sama lépp Seydou Fall la te képp kuy ab julli rek war ngaa wax jërëjëf si Ibrahima Fall ndax jul xàqal la woon ndax tubaab gën a yeew ci àdduna yéen jàng mais tubaab dañ ne Ibra Fall est un fin diplomate remarquablement intelligent nit ku intelligent la woon. kon nit ñi ko jëw ne daal defoon doonoo xamul Cheikh Fall moo gën a yow ñëpp ci àdduna ndax li mu fi tegoon rek mooy dëgg bokkul bokkul sëñ Touba Mbacke bokkul Boussa mais ku tudd Cheikh Fall ku tudd sëñ Touba teg Cheikh Fall kon difam rek moo wér. tey mbégte la doon ci yow. Euh, nga ñëw ci 18 safar bi moo la gën a impressionné ci bés bi. waaw Sëñ Tuubaa daa woote bis bi ne nan ma sant yàlla yàlla heure bu ñëwtee di commencé ci ginaar ba ci gëléem kon bis bu jëf la te Seera Fall rek a jëf ni ñuy toppee Sëñ Tuubaa ndax daa fekkoon ñëw gars yi di jàng te te Sëñ daa ñu doon jàng jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk bàyyil jàngale bi te yar te yar taalibe yi Seera Fall ñëw nag wane na naka la daa daa daa teg nag yoon wi yoon wi yoon wi na mën a jaar ba xam Sëñ Tuubaa boo koy nuyu wàcceel sujjóot raam bul ko jege lool ndax du wax ci kaw bul ko sonal booy ñëw raam ka nii am loo bàyyi ci loxoom moo fi moo fi tere tamit wuyoo naam de wuyoo sa sa sa kon Serap Fall moo jàngale yoon lépp. dégg muy wax jëf jël waaw ban déggin nga ci am. jëf jël alxuraan moo ko wax ndax sunu borom waxul man allima saalixan ku mokkal nu fay la amul man amee la saalixan rek fali nafsi moo ne si alxuraan ku jëf ñu fay la mais ku mokkal ñu fay la amul ci alxuraan kon jëf rek a wóor alxuraan lépp jëf lay tegtal la te jàng téere yi téere yi nii maanaam day day day day day tee wax téere tee wax la mais jëf rek mooy dëgg ndax nee na nee na deneen wax rek ba ma yomal xeyam suñu borom fay wax bàyyi jëf du am kon jëf rek moo wóor seera faaloolu su loolu la jàngale ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi waaw ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di leen gërëm bu baax seen teewaay ndax ñëw fi di leeral mbiram Serigne Fall moo fi des ñun Serigne Fall amuñu si moom sago te Serigne Touba leeral si bopp ni ñëpp mais Serigne Fall moo nekkoon zone d'ombre bi mais nag nit ñi commencé xam ki Serigne Fall lu jamono gën dox ci kanam rek mbiram Serigne Fall gën a leer kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax kontaan bu baax a baax mu ngi noonu mu ngi noonu donc kaddu yi sont unanimes ku si nekk témoignage bi muy def si Cheikh Ibra Fall rek ah boo ko dégloo dina la wax loo xam ne xamoo ko woon donc loolu lañ mun a jàng ci Cheikh Rafal école la école la daara la ah koo xam ne jàngale na koo xam ne xam le na ah sol na ci dënnu góor yi lii di mbootu laa ilaha illallah donc te ñu ngi koy doxee euh, ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax a baax war cee topp parce que loolu rek nag mooy dëgg waaw kalima bi rek mooy dëgg képp ku ci top rek dinga nga gis jëriñu euh, diine ji te di nga xam ne dëgg-dëgg teg nga sa tànk ci li nga xam ne moo di l'islam euh, xanaa ñu ñu jéem a jege aussi suñu yaay bo yi jëm leen laaj rek ay baat ci seen teewaay ñoom it ci ci bërëb bi yaay booy noo def waay. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. est-ce que mun nañ xam tur beeg sant bi. man soxna Jaara laa tudd. Diop uh-huh. laa sant. foo bàyyee ko. Mauritanie laa jóge uh-huh. ñëw di ziare maam Cheikh Ibrahima Fall. Uh-huh. waaw ndax mooy lamp baabul muridin mooy dànjar ak yoon gi ñu ngi jaajëfal maam Cheikh Ibrahima faal bu baax a baax di sant Serigne Touba ñun ginnaaw yàlla ak yeneen bi Serigne Touba rek la ñu am waaw mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg suñu maam liggéey Serigne Touba. muy ma Gueye jëm mooy geeri mu téye woon ko ci loxo boppam mu geeri ci 14 18 kon ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu booleeg Serigne Touba boole ñu ziar sax maam sëñ Baara Mbacke moo li jëloon suñu maam kon ñun sëñ murit rek lañ mën doon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yenant bi di jaa jëfal Serigne Touba bu baax a baax a baax ban yëg nga am nga teew fii ci kontaan mënu sax wax tey ndax wax dëgg yàlla suñu xol dafa fees tant que yàlla wommat ñu jóge Mauritanie ñëw ba Sénégal gii ndax sëñ Touba dañuy sant yàlla bi ñu ko yàlla mottalee suñu yéene ñu ngi ñaan daal lu fi waaye ñaan yalla na ko yàlla nangu ci barke Serigne Touba ak jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall daal loolu daal la ñuy ñaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan rek man moom mënu ma wax dama kontaan dama bég man maa ngi jóge ba Nouakchott mhm. yàlla boole ma xeet bi rek boole ma Serigne Touba man tukuloo laa ndey ak baay mais yàlla boole ma indi ma fii rek dama kontaan mënu ma wax jërëjëf daal ñu ngi leen di jaajëfal merci doon bërëb boo xam ne euh, lii mu làmboo ci ay euh, kéemtaan bëri na bari na bo fi duggé rek yëg-yëg bi nga xamné moy daw sa yaram rek rek rek rek benen affaire la ah nga xuus ba ci biir ñu lay wax ci fon bobu nonu taxawayam ci ci euh, manam yoon wi waaw limu fi jëf donc lo rek dafa extraordinaire ci bésu safar gi ci yor yor gi waxtu wi nga xamné ñepp ñu ngi magal bes bi di euh, demuk seigne Touba bi ñepp ñu koy magal donc ñewal ci bërebu Cheikh rafar rek nga gis ne deug deug seigne bi liggéey na. dëgg-dëgg sëñ bi am na loo xam ne samp na ko fi te doodu dañ nag ba ilaa yow mi din xanaa topp ci rek topp ci rek wane liggéey bi moo ñu fi tax a ñëw seen nañ fi suñu beneen yaay booy donc mu ngi taxaw a côté euh, yaay boy noo tudd. Ndeye Camara. Ndeye euh, ban yëg-yëg nga am teew fii ci bërëb. ah kontaan rek. kontaan rek. Uh-huh. waaw ci sëñ Touba rek moom. Uh-huh. kenn du sëñ Touba. Uh-huh. Euh, sëñ Touba Cheikh luñ doon ci yow. yii dafa fort fort na trop ci man. waaw kenn du sëñ Tuubaa kenn du maam Cheikh Fall. waaw def nga sa ziyaara yi ba noppi. def naa sama ziyaar waaw dem naa bërëb sëñ Tuubaa dem naa bërëb yëpp daal dañ naa bërëb sëñ Fall ñëw bërëb sëñ sëñ maam Cheikh Fall ñëw ziyaar fi ñaan nga say soxla ñaan naa samay soxla na ñaan yàlla balaa déwén nag yàlla defaral ba lépp si barke sëñ Touba ak barke sëñ Saliou amin ya ya yàlla na ñaan bi nangu macha allah ñu ngi ñu ngi gis ñu ngi gis ay mbokku taalibe aussi yoo xam ne ñu ngi toog ah di teewlu ñoom it eh, li nga xam ne moo di eh, bésu safaar gi ñu ngi fii toog ci ci bërëb bi nga xam ne moo di eh, xëbru maam Cheikh Ra Cheikh Ra donc xanaa rek ñu jéem a taataan ay kaddu ci mbokku taalibe yooyu le la salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. tur beeg sant bi. Ibrahima Diop laa tudd dëkk Thiès. Ibrahima ñu fekk la fii nga toog ci bërëb bi génn ci xëbru Cheikh Ra Fall ñëw toog fii di teewlu li nga xam ne moo di Sam Fall yi ban yëg-yëg nga la. xanaa mbégte rek mbégte rek. di sant yàlla di sant yonent bi di sant Cheikh Ibrahima fal mi tax naat bi rawut ndax bu du woon Cheikh Ibrahima Fall duñu jëriñ Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi koy sant bu baax di am mbégte nag ah, Sam Fall ji nag eh, yàlla mi nga xam ne dara féetewu ko kaw moo ko xool ban lii lu rëy la kon nag ku ne xam na ne Sam Fall beneen mbir la kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ba ñu yàlla yàlla ak yonent bi ak Sëriñ booleeg maam Cheikh Ibrahima Fall di ko sant bu baax di ci am mbégte daanaka nun fii mooy sunu daale koy nun fii la ñuy dal euh, barabu maam Cheikh bii amuñu feneen euh, fi la bu nu màggalee bu nu ziaree bu ñu mujjee fii fi la ñuy ziaree fii mooy sunu dalukaay di sant yàlla bu baax nag di gërëm Cheikh Ibrahima Fall. ñu gisa nga jiital njaboot gi indaale leen loo ci namm. nampatal leen ci rek nampatal leen ci rek ndax nit lu mu ne dajee nampatal ak njabootam. ba bu ëllëgee du ko rëcc nit dina ne ci mbir mbir ma am solo lool waaye mu fàtte ci ak njabootam nun nag sàkkuwunu lool nun danoo bëgg lii ñu ne nii su nampatal ci sunu njaboot ba bu ëllëgee ñuy ñaan yàlla ñoom ñu nampatal ci ci seenu njaboot ndax mooy li am njariñ tey mooy li am njëriñ ëllëg kon ñu ngi sant yàlla ñu ngi lay jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw waaw sëñ bi yow foo bàyyee ko waaw ñun ñu ngi bàyyee ko Ndakaaru waaw ñëwoon ci barabu maam Ibrahima Fall ndax ñun moom bi ñu juddoo ba ni ñu toll nii Cheikh Ibra rek lañ xam moom la ñuy bëggee it fu ñu mënti jógee ñëw Touba mënuñu génn Touba te jaaruñu ci bërëb bi ziare ko ndax ñun sëñ Touba Cheikh Ibra rek lañ am kon toog fii di teewlu Samfal bi dafa doon mbégte ci ñun ndax laa ilaha illallah lenn gënu ko kawe kon ñun dañ ci kontaan di bég lool te ñun bërëb bii mooy sunu ndam mooy sunu mbégte. fii rek la ñuy toog di taataan leer suñu borom yi waaw am ci mbégte lool nag waaw kontaan ci lool. tur beeg sant bi. Matar Diouf la waaw Matar Diouf. ñu ngi lay jaajëf. merci jërëjëf merci. ci bërëb bi dégg ngeen témoignage yi nga xam ne mbokku taalibe def nañ ko ci ki nga xam ne moo di Baabul Muridiin li mu def ci ñoon ah fa mu leen jëlee fa mu leen yóbbu donc mu doonoon euh, suñu wareef ñu teew fi rek dëgtal leen li nga xam ne moom lañ fi amal ci bésub safar bi ñu leen di jaajëfal euh, ci seen teewlu ah di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf. صلاة الذي في كل زار وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر